bokk yi ba tey ñu ngi leen di nuyu di leen ziar te téléspectateur Equivox TV yi tey nag ñi ñu toogal nii li tax ñu toog ak ñoom lenn la maanaam dafa am xale boo xam ne avenir u la bokk ci làmb ñu koy wax Bébé Diène dëkk fii ci Médina Kousoum yaa ngi dégg ñi mu bokk ak ñoom liggéeyukaay wala bokk ñu daan ko fi gis lu bari defe naa Abdou Salam moo toog ne ku ko dégg ku dégg Bébé Diène di nga teg muy tudd Abdou Salam defe naa nag boob ba te yàlla indi na ndogal ci koom mu nekk ci loxoy buur ñu fas yéene nag ñoom ah am ak ñoom waxtaan ba xam seen diggante ak Bébé ci lu mu ne ak est-ce que ñu ngi koy gis wala yu mel ni ki noonu ko ak euh, maa ngi lay nuyu kilifa gi tur bi. maa lay ziar bu wér Momu Naar. Momu Naar ku ko waxi naar boo ne Naar moom di wax ay bëy ak xar ak gileem ak nag xanaa. waaw ndawal bu nooy. ak ndawal ndawal. ndawal bu mag. international. xale bi di Bébé Diène ku ko xam xam ko ak yéen fii ci Médina Rue 5 angle 6 tey bi dal ci koom nu ngeen ko dundee yi ñu bokkoon ak moom benn lieu de travail presque. waaw loolu moom dañ ciy yàlla rek. di xam ne loo yàlla moom képp ku mu sàkk rek am na loo xamante ne mënul ñàkk ci sa dund. donc ni erreur la wala loo xamante ni daf ko waroon dal kon ñun ñi ànd ak moom ak ñi nekkak ak moom mënuñu ludul di ànd ak moom dëgg la tamit erreur ñëpp lay dal te ndog ndog ñëpp lay dal mais di sant yàlla bu wér ba nga xamante ni dalee ko ci lii mu nekk loo xamante ni ñëpp képp ku nekk ci làmb wala ñun ñi nga xam ne ñooy ànd ak moom wala di dem ak moom. gërëmlu ñu ko santuñu ko mais dafa doon loo xamante ne heure la mun da ñàkk mais kon instant bi ñu ngi ñaan yàlla di sant di ñaan yàlla yàlla génnee ko ci li mu nekkee parce que loolu neexuñu neexuñu kenn bébé jën moom suñu bébé jën la suñu doom la suñu lépp la heure moom ñëpp lay dal te instant bi moom ñu ngi ñaan yàlla yàlla yàlla génnee ko si ci barki seen Saloum. ba tey damay continuer ci mbirum bébé jën ndax li tax mooy euh, olof a koy wax ah père Max Mbargane di ko wax mbaam gàtt na waaye ci jur gi bokk parce que xale ci làmb ji te ay nit yoo xam ne doon tudd ñu koy fekk ñoom ñoom ñu di ay nitu làmb Abdou Salam mi defe naa ci la bokk génn sil nii defe naa moom tamit comme ne Assane Ndiaye parce que bébé jën ku ko xam-xam kook Assane Ndiaye Baol Production xam kook Abdou Salam Abdou ngi lay nuyu di la jaar di gërëm waa Médina fi ñu nekk di gërëm waa Pikine boo xam ne fa laa juddoo fa laa yoroo fa laa di gërëm tamit waa kusum bii ñu nekk nii waa maa ngi ziar ñëpp bëggee ñëpp waa Bébé ku ko dégg ci ay waxam saa yu waxee bay jeex wala bu ubbi yow lay ubbee wala mu tëjee la ci sama papa sama nangam Bébé Diène sa relation ak moom fan la jógee sama relation moom mooy xale boo xam ne dafa nekkoon fii Médina tey kër naar yi fii kër Bilal Fall fa la maamam nekkoon ak nijaayam mu ñëw jógee Guinée ñëw fii nekk xale bu ndaw xamul dara te ñun nekk nañ koo xam ne tey xale bu xamul dara wala leneen dañ lay tette boo nangoo ñu tette la mu nekkoon xale bu nangu tamit nangu lépp tey lépp lu ñu ko defloo rek da koy def nekk xale boo xam ne dafa neex a conseil waaw ak ñun ñu yar ko tey mu choisir làmb ñu fekk si ko ci lu mu choisir waaw mu mel nii euh, ci biir durant carrière am ñu wax lamb yëpp d'accord nañ ne am na lamb macha allah mais dañu seetlu que ni ci biir carrière bi am na ay affaires yu arrivé ci ay digganteem ak yoon mu koy am parce que biiru benn yoon bi defe naa am na amati yooyu ngeen dund ak moom euh, loolu lan la. waa xëy na ndog-ndog la la lu ko war a dal la rek te tamit aussi dañuy d'accord na da ko war a dal rek waaw tey xëy na mu doon demee neneen mu gën a métti ko nii suñu borom nii la ko namee rek dañ koy fekk si. waaw xam nañ ko tey la ñu gën a mën a ànd moom nag tey ndax xam nañ kuy Bébé xam nañ jikkoom xam nañ mooy kan tey laa gën a mën a nekk ak moom wallaahi tey laa gën a mën a nekk moom tey au maa ngi nuyu Assane Ndiaye la tamit aussi yàgg na ko jàppale ci lépp yàgg na ko soutenir tey même Assane Ndiaye tey la gën a mën a nekk ak Bébé Diène ñun xam nañu Bébé Diène bu baax. am na ñoo xam dañuy wax ne dafa manqué ay conseil parce que ni muy defee wala yàng nangam sangam est-ce que daa manqué ay conseil wala. non manqué wul conseil xam nga xale moom deretu xale la rek te am na foo xam ne boo tolloo doo gis leneen yow da ngay jàpp ne tey ñu may conseil ñibbi nañu wala nekk ñu fi rek garaaw naa ak samay morom loolu la mais du leneen manqué wul conseil manqué wul dara amul benn problème Bébé Diène wallahi problème mu xaalis problème mu lekk problème naan amu ci dara leer na yàlla bi ma téem tey ku ma xam xam keneen keneen ñuy jàppale Bébé Diène xam na ne amul problème mu xaalis amul problème mu lekk ndax tey presque mun naa ne ndogu bu mu doon def ci koor gi bee passé néeg bii ñu toog nii fii la ko defee wallahi amul problème mu xaalis amul problème dara mais affaire u xale la xëy na ak ñi muy àndal wala affaire mais ñoo ngi ñaan yàlla daal yàlla génne ko fu mu nekk ñaan autorités yi ñu teg seen loxo ba yàlla génne ko fi. maanaam ñaan yàlla génne ko fa autorités yi am na solo mais est-ce que euh, ñi muy àndal yéen a leen di tànn. bon xëy na xale la mbër boo ci nekkee façon nit mu nekk ngay gis. mbër moom boo ko nekkee bu ne ngay gis façon bu ne mais tamit aussi bu ñu demee ba toog ba toogaat dina xam ne léegi ñu muy àndal ak ñu ma dul àndal waaw moom ñoo ngi koy ñaan yàlla suñu borom bu génnee dina xam fu muy teg tànkam léegi bu baax a baax bu baax a baax incha allah. est-ce que tey seen fi mu nekk nii ci biir prison bi yéen a ngi gis yaa ngi koy seeti wala. waaw. nan lay dundee lii. waaw nu muy dundee gëm yàlla rek xam na ne ndogal la lu ko war a dal lu ko war a dalal lu ko war a dalal tamit moo ngi ciy sant yàlla bu baax ah waa tey metti na mettiwul tey li ma waxoon sànq rek lii nii ñu jàpp ko moo gënoon leneen moo gënoon safaan waaw mais moo ngi ñaan yàlla daal suñu borom génne ko foofu mu ne. est-ce que lii bu continuer maanaam ñaanuñu ko yàlla mais bu fekkente ne euh, euh, jëlu ngeen ci ay mesures. maanaam maanaam diggante bi muy ak justice di dem ak ñëw bi est que su yàqee su yàggee boog du moins amul lu mu war a mën a yàq si carrière am wala ay dossier ak yooyu. non ndax moom ñun ñoo ngi ñaan mën na yàq ay dossier am lu bari mais ñaanuñu yàlla mu àgg foofu ñaanuñu yàlla sax mu di diire fa dara ñaan nañu yàlla ay fan yu néew sax mu ñibbi ñibbisiwaat ñoo ngi koy ñaan yàlla suñu borom ndax xale bu am avenir la xale bu lamb yaakaar la xale bu lamb yaakaar la tamit waa Medina yaakaar ko lool lool lool lool. mu nekk nit koo xam ne tamit kuy def social la Bébé Diène combat mi muy bëri lamb simple yëpp gannaaw la alalam yëpp da koy def ci social tey mun naa ne dama ko force ci ubbi compte pour mu ubbi woon compte sax maa moom rent nañ def lépp ndax xaalis buñ ko mënut a jox da koy maye jiwaat ay mbër sax dañuy ñëw da leen di yëkkati alalam jox leen ko kon xale bu jaar jàppale la nañ ko jàppale ndax mu génn fee mu nekk daal waaw ñoo ngi koy ñaan yàlla suñu borom mu génn foofu mu tey moroomi mbërëm yi nga xam ne wala sax jeunesse bi laay wax ñu ngi ci réew mi tey ak yu mel nii ah yow en tant que kilifa di bàyyi ci ñi nijaay ak mag ci ñenn ñi ban message ngay yónnee jeune u Sénégal tey. mooy tey lu dal ni Bébé Diène mooy xale bu ne am conseil bu ñu la tegal fi sa tànk teg fi sa tànk tegal fi sa tànk teg fi sa tànk tey xale boo mbër surtout nga nekk mbër tey bu ñu lay wax na la moytul lii wala moytul la lii moo tax ñu lay yax moytul mais du leneen tey boo nekkee xale war nga am kilifa. li olof njaay di wax boo amul kilifa jinne doon sa kilifa xale boo ko nekkee da ngay am kilifa voilà suñ la jaarloo nga jaar ko suñ la teggloo nga tegg ko. moom daa dëgër bopp wala ku neex a waxal. non neex na waxal trop ndax tey lépp lu muy def fugu xale bu ko toppee tey boo ko wooyee wax ko wallaahi lazim après ay jooy la ciy teg day jooy man xam naa ko bu baax kenn du ma wax kuy Bébé tey mun naa ne yaayam bu ko suku jur sax man maa ko gën a xam kuy Bébé Diène wallaahi waaw. tey supporter am yi yéen a ngi yéen a yaa ngi leen di gis parce que ay supporter am ngi Medina ñoom itam nuñ dund affaire bi non dund nañ ko xëy na métti na leen luñ ko jàpp mais tey balaa nga doon xam ne tey ñu bàyyi woon ko tey tey li ñu gën mën a ànd ak Bébé Diène te ñuy ànd moom ànd moom ànd moom pour ngir intérêt dañuy ànd moom te bëgg ko te yàlla tax waaw te yàlla tax di nuyu tamit Père Kayre ak ñoom Ibou Thiombane tamit aussi ah ñoom tamit ñoo ngi ciy dox ay jéego ndax Ibou Thiombane sànq rek ñoo ngi déggante ci affaire Bébé Diène waaw taxawagul pour ñu war ko àtte wala. non taxawagul mais ñoo ngi ñaan yàlla suñu borom pour mu taxaw léegi bañ a yàgg pour mu taxaw ñu bàyyi ko waaw loolu la ñu ñaan yàlla suñu borom waaw te yàlla na ko suñu borom def waaw. moo fi ñëw ba dem tamit te laajuma la ci làmb ji yow mi en tant que amateur u lamb ji huis biñ ci wax yow ànd nga ci ñu tëgg ko kenn bañ a seetaan. xam nga huis bu ñu ko waxee mooy amateur kon amatul non non bu ñu xasee ba wax huis clos amateur amatul te ñun ay lañ ñun ñooy waa jeune amateur. foofu nga bokk. falaa bokk te falaa mës bokk. voilà. te kon yow andu ma ci. non anduma ci. anduma ci daal lu ñu wax. ànd naa ci loolu. tey stade arène arène nationale ay 16 ñoo fa ne tey bu kenn toogee ci benn 16 ñu tëb beneen sëtë beneen 16 bi toog ci beneen 16 takk ay max laal zel mais huis clos moom bu ko defee moom mooy amateur amatul mooy làmb day day bëgg a dee. kontaan naa ci yow. waaw fii la salaam borom bagage yu baax yi. waaw gis nga borom borom ndawal yi waaw gis nga waaw yu nooy yu baax yi. nu nuyu tamit sama sœur mooy kii ñu fekk si nii raaya maa koy nuyu ak borom këram Mouhamed ndax suñu sœur bu baax la waaw maa ngi koy bëgge bu baax a baax waaw du bëgge waa këram waa kër Bilal Fall ñoom ñëpp ah waaw fii la ëppee jaajëfati